biir bàmmeel loolu ci télévision Futurs Médias lay amee dara du leen ump ci burdu bi yëpp waaye bisu gàmmu di ngeen bég Serigne Babacar Mouhamadul Mouhamadul Mansour guddal fan si dem wéral yàgg fi lool ba nga jiit suñu jumaa ji daañ ci ñëwaat léegi ajaa euh, ñaatam ba jàpp sa ful la sant yàlla bu baax ñu bokkee ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel la bu baax ci gàmmu gi ndokkeel ñëpp ndokkeel képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy setaan Euh, dañuy sant bu baax ñi nga xamante ni ñoo waa ministère de l'urbanisme di sant suñu euh, ministre bu baax ñoom ñi nga xamante ni ci seen kilifteef la woo UCG juddu ñoom nag daaw euh, dañoo demoon fi nga xamante ne mooy centre bi ñi nga xamante ne yàlla dafa muur seen ay bët ci caaro yi daaw jik am na deux ans ba ñu fa demee woon dañoo ñëw fekk mu délabré yàqu torop dara amatu fa loo xamante ne mën na leen a dimbali njaboot ya fa nekk ngir ñu dund yàlla muur seen ay bët ñu toll ci lu toll fukk ak juróom wala fukk ak ñetti famille nekk ci biir di dund ñu ñaanaloon leen dimbal ca koor ga la woon ci quartier général ñu pare ci loolu daaw ñu ñëw ci yeewu leen am ñoo xamante ne dañoo dem commande leen di jaay tey ñu dem ba nga xamante ni ay entreprise ñu ngi jóg di nuye ay li nga xamante ni mooy ay partenariat ak ñoom di leen commandé ay commande yoo xamante ni tax na seen usine ba judduwaat na ba tey ñu ngay liggéey tey yóbbu la liggéey ci waa UCG ñi nga xamante ne ñoo ko commandé dañuy seetaan élément bi dellu si waat léegi. waaw man maa ngi tudd Saliou Seck je suis le président de la coopérative des aveugles artisans diplômés maanaam silmaxa yi nga xam ne ñu ñoo génn ci INEFJA bu Thiès. di defar ay balai di defar ay serpillère di defar napp table et cetera tey jii nag li waroon suñu teewaay fii mooy waa UCG ñi nga xam ne lépp lu set ci dëkk bi ñoom ñoo ko yor dëkk bi fi mu toll nii tabaski taxatul korite taxatul ñoom ñoo ñu commandé woon ay bale ñëwoon tey doon leen ko liggéey démb indiloon naa leen cent bale tey jii nga indi laa leen quatre kon pour euh, remettre leen ko symboliquement pour ñu a xam ne ñoom ñu ngi contribuer pour euh, jéem a fexe silmaxa yi ni ñu préserver seen dignité xam nga ñun suñu devise mooy une aide qui aide à se passer de l'aide kon bu fekkee ntey jii direction UCG ak seen directeur général ak personne bi yëpp commandé nañ ci ñun ay bale loolu contribuer la pour régler le euh, le problème de la manne waaw yemuñu foofu euh, partenariat bi dafa nekk partenariat boo xam ne bu durable lay nekk UCG waxuma la sax bale yi ñu leen indil am na lu ñu leen indil am na loo xam ne des na ci commande bi te li ñu commandé nag li ma mën a xamal mooy quantité bu bëree bëri la ñoom ñëmuñu rek commande cinquante wala dix nañu ñamal nañ leen li mais dañ la commande ko quantité boo xam ne macha allah actuellement ñi nekkul woon à la sax ñi actuellement ñi ngi nekk ci ci atelier yi di liggéey donc yemul fii dañu wax ne lépp loo xam ne ñun ñoom dañ koy ñun dañ koy defar li ko jëm ci bale ci serpillère ak lu mu mënti doon UCG fas yéene ñu dugal ci loxo pour jàppale ñu pour ñu mën a xeex yalwaan bi mën a bañ a delluwaat ci mbedd mi di yalwaan. man la euh, Mamadou Sy Diallo je responsable des achats de l'UCG di lu kàddu yu monsieur Seck sànni ci bu mag ci ñun bu ñu gisee solution ci doomu réew mi rax ci dolli mu doon ci doomu réew mi ñu nga xam ni dañu dañu silmaxa bëgg a préserver seen dignité humaine tax ñu ne du ñu dem ci mbedd mi mukk tàllal seen mi ngi noonu mi ngi noonu néew ji doole jàngoog mi ngi noonu euh, jàpp sa fulla nattu bi la yàlla teg teewul comprendre àddina teewul lépp borom bi subhanahu wa taala nit la ko jox teraanga yëpp pour doomu aadama la seen njàmbaarte waaye seen fulla ñoom itam kenn ku ci nekk war a gestu leen gën leen a bàyyi xel Adja Ñaatamba yaakaar naa euh, daaw jéeg bi nga fa demee ak léegi ñoom itam am nañ beneen yokkute goo xam ne ñu ngi koy yëg ci place ba dañ koy sant yàlla oustaz waaye itam di sant bu baax a baax waa ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique ñoom ñi nga xamante ni fa la UCG juddoo mhm. UCG tey ki nga xamante ni moo doon wax léegi euh, kooku mooy responsable des achats mhm. lépp loo xamante ni moom lañ fay jënd moom moo koy jënd mu ngi tudd Amadou si Diallo Amadou Sy Diallo waaw Amadou si Diallo moom moom la ñu yónni mu dem nuyee benn partenariat boo xamante ni ak ñooñu nga doon seetaan léegi. Mhm. ñooñu nag ñooy ñi nga xamante ne ñooy coopérative des artisans aveugles bu caaro Thiaroye ñoom ñoo fa nekk mi ngi judd woon ci jamonoy président Ablaye Wade. Mhm. donc mu nekkoon euh, loo xamante ne dafa metti woon trop ci seen côté. tey bu ñu demee ba nga xamante ne gis nañ ay entreprise yu nuyee ay relation ak ñoom euh, te ñoom nekkuñu ñoo xamante ne comme ni mu ko waxee léegi dañoo ñëw commandé 10 wala 15 wala 3 bale dañoo ñëw commandé 700. brosse. 700 balais cest sa dire mu nekk loo xamante ne tey dégg nga ko li mu ko wax léegi seen président bi muy tonton Saliou Seck nee na ñi nga xamante ne dañoo leen wàññi woon ca si liggéey bi pour ñu toog seen kër woowaat nañ leen pour ñu liggéey. donc tey mu nekk loo xamante ni tey man nee naa euh, euh, tey boo demee ba nga xamante ni yàlla jox na la nguur ci fenn dimbali ñi nga xamante ni tamit tàllaluñu loxo mais dañoo am seen seen xel. am seen xalaat jàng ba mën li nga xamante ne dañ koy def mais yàlla muur seen ay bët nga ñëw sant leen mayoo leen tàlluñu loxo waaye nga leen di fay ci la ñuy liggéey je pense que loolu jaamu yàlla mënu ko weesu mm-hmm. donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa UCG gërëm leen ci li nga xamante ne def nañ ko te lépp na ñu ngi juddoo ci groupe Futur Média ci émission bi nga xamante ne ñu ngi koy am ak ñoom parce que entreprise yu bëri ci la ñu gisee seen liggéey ba dem tey ji mën a nouer relation boobu mm-hmm. ak ñoom donc tey loolu bi nga xamante ne def nañ ko bi ñu jugee ci suñu ay congé encouragé waat félicité waat waaye tamit santaat bu baax a baax ñi nga xamante ne waaye UCG lañu tey wax yeneen entreprise yi nañu def comme ñoom parce que bale yi ñuy def weñ la ñu koy defee tali bi dañ koy soxla mhm. yeneen euh, euh, ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci loolu aussi dañ koy soxla serpillère yi ñuy def mënatuñu koo jaay ci mbedd mi ndax gis nañ ni chinois yi andi nañu ay serpillère yu gën a yomb tey moo tax ñoom te ñoom li ñu def seen ay loxo lañ koy defee machine yaa ngi foofu dëgër na te serpillière yi tey boo ko utiliser di nga xam ne lii am na am na am na qualité boo xamante ni nekk na ci donc bëgg nañu bu baax a baax nit ñi dem seeti leen mm-hmm. ñu nekk caaro yi te yaakaar naa ni li ñu def am na solo kon santati gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni mooy waa UCG macha allah mm-hmm. am nañu mbégte am na solo mbokk yi mm-hmm. kon ñoom itam kenn ku ci ne euh, war nga ko loolu bàyyi ko xel waaye itam kenn ku ku yàlla nattoo nga am doom joo xam ni doom ju laagu la fexe ko préparé ngir ëllëg boo bàyyi ko mu mën a taxawu boppam. mën a yor boppam fexe jàngal ko. bari na ay silmaxa yoo xam ni ay intellectuel lañu. ay borom yi euh, daraaje lañu. ñoom it seen jàmbaarte. loolu nag wuy jur euh, Ousaasan yaakaar naa euh, mooy gunge doomam. ba mu mën a taxawu mu dimbali. waaw loolu Oustaz Pape li firnde rek ginnaaw bi ñu félicité Adja ñaatam mhm. mooy élément bi nga xamante ni seetaan nañ ko léegi. Mhm. si jàmbaar yi nga xamante dañu nekk di liggéey. ak li nga xamante ni moom la leen borom bi subhaanahu wa taala teg si nattu mhm. te lii leen dal mën na dal ku nekk mhm. ndax suñu borom subhaanahu wa taala moom mooy def lu ko soob mhm. waaye li may faral di wax yëpp mooy que ne ñun ñëpp nous sommes tous des handicapés en sursis waaw ku si nekk rek am na ta am na loo xam ne mu ngi ñuy dàq ñun ñëpp wax naa ko démb dinaa ko répété te dañuy jàpp mooy télé ñun ñëpp danañu jàpp waman nu amirhu nu nakkisu fil xalq afala taqiluun baax na afala yaqiluun baax na yàlla nee na ku ma may gudd fan rek boole naa la télé mu ngi sa gannaaw. Mhm. tôt ou dana ne la jàpp ne la kaay toog. parce que génération bu dem. ñeneen ñëw kon nattu bi nga xam ne yàlla teg na leen ko teewul. ñu ngi gën a góorlu ñu ngi mhm. liggéey ngir dundee li nga xamante moom moo di seen ñaq. Mhm. bu leen am bu leen neexoon ñu génn si tali bi. tàllal loxo. am na ñu koy def. mais ñoom seen ngor seen jom seen fulla ak seen fayda ak seen jàmbaarte mayu leen loolu. te yonent bi sallallahu lu mu waxoon muy lu am solo. al yadul ulya xayrun wa ahabu ila allahi min alladi sufla nee ah. hmm. na loxo bii féete kaw hmm. moom la yàlla gën a sob moom la yàlla gën a bëgg moom la yàlla gën a naw que loxo bi nga xam ne dafa féete hmm. suuf loolu mooy maanaam ki di joxe moom la yàlla gën a bëgg ke ki nga xamante ni day wër di laaj yaa ngi dégg maanaam loxo biy joxe toujours mooy féete kaw bii nangu mooy féete mooy féete suuf te nee nañ taxaw di laaj dafa metti bu ñu la mayee nga rus bu ñu la gàntalee nga rus kon laaj dafa nekk la nga xamante ni lu metti la mais ñoom lii ñu ngi ko doon ne si suñu yonent yàlla daawud alayhi salaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa akala ahadun taaman qattu xayrun min an yakula min amali yadihi wa inna mhm. nabiyallah ilaahi daawud mhm. alayhi salaam kaana yakulu min amali yadihi nee na doomu aadama loo mën a lekk fu mu mën a jóge li nga liggéey moo ko gën ñu ne ko lu tax mu ne yàlla daawud alayhi salaam est-ce que xam nga ne tey jii nii moom moo njëkk nekk tëgg forgeron la woon yonent yàlla daawud alayhi salaam di liggéey si weñ da ngay dégg kon métier la rek mhm. te da doon daan doole malgré yonante la woon mooy li ma mhm. doon wax sànq si imaam yi yonante la woon mais da doon liggéey moom yonante yàlla daawud alayhi salaam ngir dundee li nga xam ne moom da ñàkkam kon ñi ay jàmbaar lañ dañ leen war di gën a jàppale gën leen taxawu gën leen aar ndax seen métier mi métier mu noble la ngir itam ëllëg ñi nga xamante ni xëy na laago da leen di dal ñu xam ne kat réew mi état bi nguur gi ak nit ñu baax ñi pare nañ pour jàppale leen de ce fait dinañ gën a góorgóorlu si njàng mi ak yu demee noonu oustaz ba pare oustaz ñu mhm. teg si ne rek euh, ñoom ñoo gën a ñoo njëkk a gore parce que tey gis nga nattu bi ñu yàlla teg mhm. muy coronavirus mhm. am na ñoo xamante ne nii ba ñu confiné woo sa fait dix ans ou quinze ans génn parce que mënuñoo dox ñoo wax mënuñoo nu ñoo doxi seen ay soxla ñu ngi seen biir kër génn ñu demuñu fenn mais gore lu ñu seen loxo donc tey jii bi ñuy joxe li nga xamante ne mooy ndimbali wax naa ko fi dañ leen waroon fekk seen biir kër jox leen parce que àdduna du neex ba ñu génn ci mbedd mi taxaw tàllal seen loxo seen ngor mayu leen ko mm. donc ñu nekk ñoo xamante ne tey jii ñu ngi koy dund mu metti foo leen fekk ñu ngi takk seen masque foo leen fekk également ñu ngi ñu ngi yore seen ay gel alcoolique ñu daan yelwaan ci mbedd mi wàññeeku na donc je pense que tey taxaw seetlu bi mooy tey képp koo xamante ne yaa ngi ci yore mbir di ko defar tey liggéey bu ñu la mënee dimbali ñu dimbali te yàlla tax macha allah am nañu mbégte Adja Ndiathamba am na solo kon ñoom itam euh, xam naa balaa ñoo da tàggoo faaw nga seet sa ni euh, joxe see numéro képp ku leen mën a dimbali ñoom itam jàppale leen ñaanal leen euh, Sidi Bouya bu Bouya Mbaye Silmaxala mais hmm. intellectuel sama mag jooju maa ngi koy nuyu Alaaji Saam Mbuub Silmaxala Saam ah oh borom xam-xam la nu koy nuyu moom itam waaye Saam Saam